yuuso ñuy ree ah waaw yow li ngay wax nii lu mu doon man lu may wax nii yow xamoo li may wax yow xamoo sa bopp sax xamoo man xooloo ma ba xool ma ma peese sama bopp man diis loolu mat li ma doon xamoo man lu may jar toogal foofu léegi nga gis ma ànd ak sa morom mu yor oto bu tooy xepp man di ma gérer ndax yow xamoo li may jar waaw yow li ngay wax nii lu mu doon waaw waxoo fi dara li ngay wax nii mënuma ma ko dégg allo allo allo oh sama crédit jeex na. jóge leen sama buntu bukiti bi puus leen fii waay sonal ngeen ma waay looy jënd. eh jaama crédit. xaaral booy crédit amul. crédit bi jeex na. jeex na jaama crédit waaye. si nga ne soble ñaata. soble ñaari bi dimbali ma rek nga jaama crédit. crédit jeex na. amoo sax téléphone bu ma mën a wootee bu des crédit foofu. waaw toppal ne tuuti ba. waaw jàpp ci la waaye sëñ bi tey te jaama soxna si jàpp si nga waxoon jaama. ah man de damaa waaru. sëñ dese naa fii deux cent crédit. waaw waaw. waaw am woote waaw am ma woote may cliente bi mu taxawu. alo waaw waaw allo waaw waaw yow li nga wax non non loolu mun moom déedéet yow yaa may déglu déglu ma rek déglu ma allo waaw waaw waaw waaw maa lay woowaat léegi am ñaata la. bii rek ñaata la rek ñaata la. 200 la. waaw ma ñaanaa ci des. 20 eh, francs kese moo si des. 20 francs 20 francs kon loolu du 200. ah la moo tax du 200. waaw léegi 20 francs 20 francs doo des oui ma 20 francs doo des. kese ko tàngal mant doo moo ko tàngal mant.